tyran Macky Sall tukki na li mu wax leer na nee na débat juridique bi le débat juridique est réglé ne se pose pas ne se pose pas waaw mooy c'est réglé mhm. mooy que man c'est une décision bu ma jëlal sama bopp c'est-à-dire man lay neex ma dem wala man lay neex ma dem mais en disant ça mooy constitution beeg Euh, kii bi référendum beeg yëpp dañ ko ubbi def ko ci poubelle bi. non non je suis xam nga. xam nga problème bi xam nga le problème. xam nga le problème mais non mais non mais attends. xam nga yow sax da nga ne doo président Macky Sall. waaw mais non ko fi de. ñun ñëpp ko fi toogal. non non ñun ñii ñëpp président Macky Sall suñu président. man mi fi toog. voilà mais moo faral waaw mais d'accord mais waaw mais dama ne. non non non waxuma la j'ai pas dit ça j'ai pas dit que dafa ne dama ne mm. président Macky Sall à 10 ans que le débat juridique ne se pose plus mooy que référendum bi ñu wooteloo nag affaire yooyu yëpp amul benn njëriñ. déedéet mais non mais non attends sa xalaat la. waaw mais amul benn njëriñ da nga naan man maa ne. sa xalaat yow mais xam nga. xam nga lan moo xam nga lan moo metti. xam nga lan moo mais yow loolu nga xam nga lan moo metti. mbir ma ah. xam nga lan moo difficile. xam nga lan moo difficile. non non di nga wax xam nga lan moo difficile. ngay ngay jéem a légitimer dara loo xam ne au fond de toi foncièrement gëmoo ko nga tëgg nga nga kii nga xam ne lii c'est difficile de prôner ça wala taalaay da ngay nax sa bopp foofu laay li may légitimer nii yow xam nga ne c'est légitime ah, mais on a dit deux mandats de cinq ans ba baa may dugg ci suuf deux mandats de cinq ans ba baa may dégg ci suuf président Macky Sall benn la def bi mu koy def voté gu ñu référendum dama jàpp ne benn la amagum. a dit. mais oui am naa ci droit oui. mais Charles amu am nga ci droit. bi ñu def référendum. am nga ci droit bi ñu def référendum bi ñu voté référendum. dafa fekk doon président Macky Sall ñu fal ko ba pare. mais est-ce que man mii. tey jii loi bu juddu. mu fekk ma juddu. 2010 loi juddu deux mille deux mille deux mille vingt est-ce que li ma defoon ci ginnaaw yëpp loi boobu daf koy àttewaat man man lay wax. non non tontu le droit. Mhm. d'interpréter. loo ko bëggee. non li ma d'accordul li bu ba pare non kay ak yow par contre man. non dama ne man lay wax benn affaire. mbiri ma sax laa wax. Ah, yomb. attends dama lay wax benn mm-hmm. ba ngay ñëw ji jël ñu lay jox nguur gi. Mm-hmm. dañ fa fekk benn constitution qui date de 2001 dañ ka fa fekk mu régler la question des mandats en deux mandats 2007 kii ñu changé ko yóbbu ko sept ans mais c'est la question des deux mandats la cause est entendue nga toog woo sénégalais yi wax ak ñoom président de la république première et seule institution incarnée du Sénégal nga wax ce premier ministre Boun Abdallah Mohamed Dionne wax ton ancien premier ministre wax sénégalais yi déglu la nga wax lu ngay wax bu la neexee après nga ñëw nga xool ma man dans les yeux ne ma wax waxeet am na ku ko fekk def jiitu ko si loolu mu am xeex bu metti boo xamante ne dama si bokkoon xeex boobu dootu fi amati parce que jarul deret ji fi. contexte yi bokkuñu. après mu dem élection ñu bañ a. contexte yi bokkuñu désolé li ngeen di boole bokkul. non déglu ma ñaari ngeen boole après non attendez attendez je je dis peuple bi sax xamoon nañu la je dis encore une fois. loolu aussi c'est je dis encore une fois. da ngeen doon xeexal non non non non non non non non non